camarade secrétaire général Lamine Fall li muy wax wax bu leer la gis ngeen ni la CNTS est déterminée derrière ces travailleurs ou devant ces pour les défendre su ñu jëlee ñun kàddu gi tey xam ngeen ni pendant quatorze mois mën nañu wax ni trois mois yi lañu dégg parce que ñun ay professionnels lañu moi j'ai quarante ans à Médis voilà liggéey ba retraité donc je connais bi très bien Médis xam naa liy liggéeyu médicament boo leen leen gisul ci mbedd mi parce que nit mënut defar luy faj nit ba pare saa bu nit ni nga gis ko ci mbedd mi bu bu yàggee ba yàgg dootoo wóolu lu muy def loolu bokk na ci li retenir camarade ñu xam ni non seulement ils ont perdu des salaires mais ils ont perdu des camarades en cours de route perte nañu ñetti camarades génn àdduna ci diggante bi waxuñu nag yeneen problème yi sew sewaan yi am muy école yeeg sëy yu yëngu yi kon c'est une question extrêmement sensible waxuñu pour président de la république pour wax lu ko neex parce que ñun ay syndicalistes lañu mais des syndicalistes responsables bu nit ki defee dañuy wax ni kii moo def nous disons que le président de la république wax na waxaat waxaat wax na ñetti yoon léegi ñun bu ñu génnee suñu parce que ki war dégg dégg na bi directeur président directeur général du international ñëw na Sénégal recevoir naka ñaari yoon deux mois bonne volonté passé wu loolu recevoir intervalle deux mois kon volontaire mu ngi fi maintenant nag de petits fonctionnaires on dit bien de petits fonctionnaires war ñu fi nekk di téye réew mi sénégalais yëpp bi ñu xamee Médis mooy bi mbas mi ñëwee alors que Médis à 47 ans mais ñi nga xam bi mbas mi ñëwee ñu xam ne ah ndekete Sénégal dañ fiy defar ay médicaments parce que kiy defar médicament ni réewul kuy defar leneen dafa am ay responsabilités yu taxaw ci kawam. léegi nag suñu responsabilité yooyu moo ñuy puus nag ñun tam en tant que sénégalais ñu fippu te nag ces ministre et ces fonctionnaires yi taxaw téye dossier Médis boobu nañu xam ni cinq jours lañ leen may dès la semaine prochaine danañ ñu dégg sur le terrain parce que xam nañ ni kilifa gi nga xam si mooy joxe ndogal joxe na dogal te ñun dinañu exécuter ndogal bi mu nga ñoom mënuñu ko exécuter ñun dinañ ko exécuter Et vous exécuté, exécuter, exécuter en connaissance de cause. Le marché du médicament, ça fait 130 et quelques milliards. Nous avons 20 milliards. Quand nous avons 110 milliards, nous avons pris l'objet. Nous avons volonté moi amul du côté des autorités xamuñu li peuple bi du de certaines autorités mais président de la République nag xam ni moom sur ce dossier de MEDIS liggéeykat yi reproché wuñ ko dara parce que xam nañu MEDIS moom moomu ko mais maintenant l' état du Sénégal bu demee ba jël engagement wax ni damay dugg ci biir capitalu MEDIS parce que léegi xam naa gis naa nécessité bi nga xam si moom moom lañu ñu soxloo ci médicament ba nga xam si léegi ni kon damay dugal sama loxo ci biir pour ma am ci kàddu donc ñun du ñu def la dul félicité parce que loolu rek lañ doon ñaan ñaan ñu woon leneen lu dul loolu di gën a gërëm aussi suñu secrétaire général le secrétaire général de la CNTS du ngeen dégg mu wax mais il agit ci suuf parce que bu ñu demee ba àgg fii ba am avancé yi c'est grâce à lui que ñu parvenir à cela waxtaan nañu ñun liggéeykat yi ba juboo ak direction médis ci waxtaanee nañ ko te waxtaan bu sérieux la ñuy waxtaan moo tax déggu leen ñuy wax lenn duñu salteel suñu kër dañuy defar suñu kër ba mu rafet ñu jox ñu liggéey ñu liggéey joxuñu ñu liggéey dinañu wuti liggéey dinañ xam nañu fu ñuy jaar pour autorité yii téye suñu dossier ñu débloqué di gëmer gërëm aussi parce que aussi dafa dafa am koo xam si kenn déggu ko mais Madame la Présidente du dialogue social, Innocence Tap, qu'on a écarté du dossier de Médis, te xamuñu li tax xamuñu ñu def ñun dañ koy gërëm neex dañ koy gërëm dañ parce que nak ñun moment ko ñu dañ écarté ñi ko écarté affaire mais ñun suñu dossier moom danañ ko xam na ni fi ñu koy réglé te nañ ko regle ci nii baa ci ne di leen gërëm di leen sant